waaw Latif mon cher euh, may kontaan di la yóbbante ci ministre euh, matarba, Ba sama mbégte yàlla seede na ko suma mbégte si jar jaram au niveau du ministère des sports tey président Macky Sall moom la yalla jox prérogative muy nommer kuko neex yalla. dogal na ci mbaxam mom yalla Matarba, Ba ci ministère des sports waaye xamal ko ne mbir fi mu neexee foofu ngay démé fi mu faut foofu ngay le touram dina des ci département des sports ba ilaa yomi matarba ministre des sports le premier ministre

nekkinam ci bop ministère des sports ànd ak Ils bëgg ñep bot ñep deglu ñep lolu moko may bu doxé ni yalla wacce fa xewal yalla wacce fa bu fa tout le temps président Macky Sall na fédéré toutes les forces na fexé ba pouvoir ak opposition na fexé ba. force vive na fexe ba ñëpp ba xol yëpp dëppoo mais réew bu ci xëccoo bare bu ci coow bare suñ borom mooy téye xéwal te loolu ku nekk war na say jànge kon tey Matar Ba man damay sant yàlla damay sant yàlla ca na mu demee ndaxte mënoon na dem ba ci biir mbiri soppeeku waaye comme nañu defee relais quatre fois cent yow dawalal sa cent ba mu jekk nga passé relais bi sa morom kooku mooy continuer kon tey ni ñun ñëpp nañu bokk ñaanal Yankuba Diattara yàlla defal ko ndam comme ni mu ko defalee en tout cas ministre Matar Ba ñaanu Matar Ba si Yankuba jatara mën na nekk lu am solo waye ngàccee ngalama mom Matar Ba ngàccee ngalama dafa neex ngay dem ci beurep na nga don liggéey ndor ñuy joy dekk bi amu ben citoyen sénégalais bu bekk ci dem Matar Ba ci ministère des sports lol nak moy xewalam c'est ça qui fait la grandeur de l'homme ngay dem ngay jóge ci beurep ñëpp di la jooy waaye day am na si gis nañ fi ay ministres yoo xam ne ni ba ñu jógee seen ay département nit ñi dañ doon fecc am na fi fii fii au Sénégal am na ay ministres yoo xam ne bañ leen jëlee seen bopp département travailleurs yi seen bopp laa wax dañ doon jubilé moom loolu dalu ko loolu dalu ko président Abdoulaye Wade ku ne xam na ne ba muy dem sénégalais yi dañ ko gunge parce que jàpp nañu donte ne jëlee nañ ko fii def na liggéey bu rafet loolu la ñuy xaar si njiit bu la joxee mbir ne la jiital da ngay fexe ba nang fa duggee nan la ko joxe boo koy delloo mu mel na mu meloon wala boog mu ëpp nan la ko joxe woon waaye bul fexe mukk mu wàññeeku bul la joxee fukk fexeel ba delloo ñaar fukk wala nga delloo fukk ak juróom wala fukk ak benn wala it fukk bi la joxoon nga delloo ko waaye bu la joxee fukk nga delloo juróom-ñeent mbaa nga delloo juróom mbaa nga delloo ñett loolu mu musiba la nuyul ma ko gërëmal ma ko nekk ko maa ngi koy ñaanal lu ma mën bi jaay Seydina Muhammad